sëriñ Balla Coro Mbàkke sëriñ Balla Coro Mbàkke mi ngi gane àdduna ci atum 1877 ci dëkk boobu di Pataar mu tombe woon ak waajuróom jóge woon ci xeex bi màbba woote woon ci som ci Saalum te Mamor Anta Sali nekkoon ci dëkk boobu di Poroxaan ginnaaw bu xeex bi jeexee bañ bàyyikoo ci dëkk boobu di Poroxaan mu àndaat ak kam fa àndaloon di Lat Joor Lat Joor del siwaat kër amadu Yàlla Mamor Anta Sali dem sañ ci dëkk bu ñuy wax paatar foofu nag la doomam ji di sëriñ la Coro Mbàkke feeñee jamono mu tuddee ko abibullahi ñu bari nag di ko wax bàllam soxna coro mu feeñ jamono ci atum 1877 sëriñ habibullahi ñu gën koo xam ci sëriñ bàlla coro di doomu mammoor anta sali mbàkke ak ku ñuy wax soxna coro jóob muy rakk ko baax ki sëriñ tubaa seexul xadim ndax ñoo bokk wenn waajuru góor di mammoor anta sali mbàkke sëriñ habibullahi mbàkke ñu gën koo xam ci sëriñ bàlla coro am na nag ñum bokkal soxna coro jóob ñu ràññee ci ku ñuy wax sëriñ cheikh coro mbàkke ibnu soxna coro mbàkke soxna xadijatu mbàkke bintu soxna coro jóob bintu mamor anta sali mbàkke soxna aysa mbàkke kumba anta tayba bintu soxna coro jóob bintu mamor anta sali mbàkke ak moom sëriñ habibullahi mbàkke ibnu soxna coro jóob ibnu mamor anta sali mbàkke am na ñeneen nag ñu bokkal soxna coro jóob te bokkuñu mamor anta sali mbàkke ñu ràññee ci ku ñuy wax lak seen faal ibnu soxna coro jóob ibnu cëy yaasin faal ak ku ñuy wax debbo faal bintu soxna coro jóob bintu cëy yaasin faal ak ku ñuy wax wax coro faal bintu soxna coro jóob bintu cey yaasin faal sëriñ habibullahi mbàkke ñu gën koo xam ci sëriñ balla coro kon ñett ñett la bokkal soxna Coro Jóob ci bokkuñu Mamor Anta Sali Mbàkke ak ñett ñu bokkal Mamor Anta Sali Mbàkke ak moom muy ñeent bi matee dal lii di alxuraanul karim sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim moo ko dalal alxuraanul karim ci Mbàkke Kajoor ginnaaw bi nag la ko jébbal rakkam ja maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaw ndax sëriñ Balla Coro bi matee dal alxuraanul karim la tombeeg waajuram génn àdduna ci atum 1882 kon moom bi muy dal alxuraanul karim fekku fi waajuram ginnaaw sëriñ tuuba seexul xaddim moo nekkoon léppam mu jëbbal ko rakkam jooju nag di maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru moo ko jàngal alxuraanul karim moo ko jàngal xam-xam ginnaaw bu ko magam maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru jàngalee lii di alxuraanul karim ak lii di xam-xam itaatoon nañ ko nag maam moor jaara magi mag ngir mu saytu am njàngam waaye nag macha allah li magam jooju di maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru def ci rakkam ji di sëriñ bàlla coro maam jaara di magi mag rafetlu na ko laata muy mokkal alxuraanul karim sëriñ tubaa seexul xaddim jóge na mbàkke kajoor ñëw nag mbàkke bawal sanc dëkk bii di daaru salaam ginnaaw daaru salaam sëriñ tubaa seexul xaddim nag sancaat na dëkk bii di tuubaa ginnaaw tuubaa nag mu dem mbàkke baari jolof ginnaaw mbàkke baari jolof nag la am ay xat-xat ak tubaab bi ñu yóbbu ko ci réew mii di gabon bi sëriñ tubaa seexul xaddim di dem ci géej gi sëriñ bàlla coro mi ngi ci ndar géej di jàng nag lii di ay tubaab wala di jàng lii di jàng ci ndar géej certificat certificat boobu nag ginnaaw bu mu ci jotee gouverneur général bi sàkk woon na ci sëriñ Balla Coro Mbàkke ngir ñu nommé ko chef de canton bu Dagana waaye sëriñ Balla Coro Mbàkke dafa gàntu woon boobu postu muy nekk chef de canton bu Dagana mu leen di xamal ne njàng mii ma doon jàng dama ci bëggoon a am lu ma mën a liggéeyee ngir mën a dem Gabon wala fenn fu ma dégg na sama mag ji sëriñ Tubaa Seexul Xaddim ma nga fa ngir mën a dem fekki ko keroog sax lii di gouverneur bi wala administrateur bu Ndar bi mi ngi ko doon lan moo tax nga jàng ba am yi diplôme ñu bëgg la nome chef de canton bu Dagana nga taxaw ne yow soxlawoo poste boobu da ngay fekki sa mag gi sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim mais xanaa xamoon ne yow ne koo kuy avancé ci àdduna sëriñ Balla Coro di xamal commandant de cercle bi ba nëga ni man daal loolu moo taxoon may jàng ca waxtaan woowu lu ko commandant de cercle bi waxul da ko fàtte ngir di ko xas ak di ko ŋàññi ci lan moo tax sëriñ Balla Coro bëgg a doxale noonu sëriñ Balla Coro Mbàkke mujj na ñaan demande autorisation ngir may nag mu dem fekki magam ja ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim administrateur bu Ndar mujj na ko jox boobu demande d'autorisation ngir mu dem fekki ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim gouverneur général bi lettre boobu mu joxoon sëriñ Balla Coro Mbàkke ngi wax ca lettre ba yow commissaire général du gouvernement de Congo française man gouverneur général bi man maa lay yëgal ne may naa demande d'autorisation ku ñuy wax Balla Mbàkke ngir mu ñëw seet si Cheikh Ahmadou Bamba Mbàkke miy magam foofu ci Congo française Cheikh Ahmadou Bamba Mbàkke mi nga xam ne nag détenu politique la te nekk itam ci zone boobu nga jiite Balla Mbàkke nag su dee ñëw ci frais boppam lay ñëwee mooy mooy paasal boppam bato bi njëkk a jógewaat nag foofu ci Libreville war a ñëw fii ci Ndakaaru suy dellusiwaat Libreville nag ci la Balla Mbàkke di dugg di ñëw waaye Sëriñ Balla Coro Mbàkke mujjul dem nag ci demande autorisation boobu ko gouverneur général bi mayoon bi mu waajee bay waaja dem la Sëriñ Mouhamadou Lo Dagana demoon Gabon fekki ko baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Tuubaa Seexul Xaddim waxoon sëriñ Muhammadu Lo Dagana na delluwaat Sénégal te wool ko maam Cheikh Anta Mbàkke ginnaaw bu sëriñ Muhammadu Lo Dagana ñëwee Sénégal di woo si maam Cheikh Anta Mbàkke demande bi maam Cheikh Anta Mbàkke déposé woon dafa yéex a génn ñenn ci boroom xam yi wax nañ ne maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke moo sàkku ci autorisation bi sëriñ Balla Coro yoroon ngir mu jébbal ko maam Cheikh antam Mbàkke ngir maam Cheikh Anta Mbàkke mën a dem Gabon fekki magam ji ku baax ki sëriñ Tuubaa gouverneur général joxoon sëriñ Balla Coro Mbàkke ngir mu fekki ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ci demande autorisation bi sëriñ Balla Coro Mbàkke ñaanoon te mujjul dem lettre bi nag ñu ngi ko bind ci le 23 septembre 1899 soo demee archive nationale numéro lettre bi 72 la fa monsieur le commissaire général du gouvernement du Congo français Libreville j'ai l'honneur de vous informer que j'ai autorisé le nommé Balla à se rendre au Congo dans le but de rendre visite à son frère Mamadou Bamba, détenu politique internet dans cette colonie. Balla Mbacké prendra passage à ses frais sur le prochain paquebot touchant à Dakar à ñu bari wax nañ ne demande autorisation bii Serigne Balla coro Mbacke amee woon ci la maam Cheikh Anta Mbacke demee woon Gabon fekki magam ja Xaadim Rasuul ci ndigalul maam Thierno Ibrahima Faati Mbacke ndaamal daaru mi nekkoon seen mag Serigne Balla coro Mbacke itam ñaanaatoon na beneen autorisation ngir fekki waat ku baax ki Serigne Touba Seexul Xaadim laataa muy dem nag ci la gisee Cheikh Sidiya baaba am na ñeneen itam ñu wax Cheikh Sadiya Abi ñoom ñaar kenn moo ci xibaar mag ja xaadim rasuul dana ñibbisi balaa yàgg loola itam moom moo tax mu jul dem ca yoon woowa itam seex la coro yàlla nañu ko yàlla fayal ci yéene jooju mu amoon ndar googu itam la mujjoon des ba ni magam ji sëriñ tubaa seexul xaddim ñibbisee ci géej gi bi sëriñ tubaa seexul xaddim ñibbisee ci géej gi ci le 11 novembre 1902 ginnaaw ba mu demee ndar géej googu gisee na fag rakkam ji di sëriñ bàlla coro mbàkke ndax bi sëriñ tubaa seexul xaddim di dem ci géej gi sëriñ bàlla coro mbàkke mi ngi woon ci ndar googu di jàng ndar googu bi sëriñ tubaa seexul xaddim ñibbisee ci géej gi nag ndar googu nag la ko fekk ginnaaw bu ñu nuyoontee saafonte nammanti ko sëriñ tubaa seexul xaddim laaj na sëriñ bàlla coro loo doon jàng sëriñ bàlla coro di ko yëgal ne ay nasaraan daal la doon jàng sëriñ tubaa seexul xaddim sàkk woon na ci sëriñ bàlla coro bépp këyit wum yoroon tam ne këyitu nasaraan mu indil ko ko ginnaaw bu ko sëriñ bàlla coro mbàkke indee sëriñ tubaa seexul xaddim dafa ànd ak moom ñu gas lenn la lenn la ñu taal ko sëriñ tubaa seexul xaddim di ko wax ne bàlla coro am na lu ma nar ci yow waaye lépp loo xam ne nii moom mooy nitiku àdduna yi ak lii di nasaraan yi sama digganteek ñoom yow mi nag laay def ci diggante bi yooyu kàddu la sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim tàggoog sëriñ Balla Coro ci Ndar géej sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim bàyyi ko Ndar ñëw Louga bari jàmm siise Sànnoosi ginnaaw Sànnoosi nag jaar na fi mu jaar ba ñëwaat Daaru Salaam Daaru Marnaan amaar fi takk-takk ak mbaaxaan tubaab bi duggaat ñu yóbbuwaat sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim ci réew mi di gànnaar gànnaar googu sëriñ Balla Coro fekki na fa ko baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim bum demee gànnaar siyaara ji magam sëriñ tuuba seexul xaddiim ci fan yi mu am gànnaar ngir sëriñ tuuba seexul xaddiim doon ko tarbiya wala weer yi mu am gànnaar sëriñ tuuba seexul xaddiim kere bi mu koy yeewi ngir di ko wax ne mu delsiwaat nag ci dëkk bi di ndar géej ngir toog fa am na yeneen ay mag yu dikkoon gànnaar doon ziyaare si ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim mag ñooñu sëriñ bàlla coro la leen seexul xaddiim booleeloon ñu ràññee ci ku ñuy wax Alioune Baar ak ku ñuy wax Xawsu Kan kon ñaari taalibe yii la a am ginnaaw bu mu ñëwee ndar géej nag ngir toog fa jébbulul ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim moom magam sëriñ cheikh coro ngir fas yéene nag di defar ak di defare ginnaaw bi nag sëriñ balla coro nekkoon na ndar googu boole koog nag di wër tundu ndar woowu kum gis ngir bëgg laa boole ci ëtt ëttub ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim dëkk yu bari yu jege ndar googu wala dëkk yu bari yu wër ndar googu kii di sëriñ Balla Coro Mbàkke dem na fa ngir fa yéenee defare ndax soo demee ci wolofal bi ko sëriñ ba Sare way ma ngi lim dëkk yu bari yu sëriñ Balla Coro Mbàkke dem ginnaaw bu ko sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim dëlee ndar googu ñu teewlu wolofal gi ko sëriñ ba Sare way ngir di lim dëkk yi sëriñ Balla Coro dem bi mu nekkee ndar googu ci ndigalul ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim di ñëw Tiwaawan kër Seex Mulaay Sëri ba mbooloo ma nekk foofa dal di jébbulu ñu jox ko fa ay addiya dal di sébbulu mu joge fa jaar jaxatil kër maharam jaaraama sibtu balla aysaak maaram mbooloo mépp jox ko seeni njëbbalu naa ko sëriñ bi nangul ñaanal di jéggalu cheikh balla naa leen nanu gëm cheikh bamba topp ci ñun ñu topp yàlla ak bamba jóge fa dem kër njaga mboj ci bawal kër sàmbakan ak tundu njaay dànq diwal wal mu soga jóge foofa sañ ci jaaxal làmbaay ba caabi tépp wut ci jaaxal tundu bawal diwal ba jëm ci saalum ñëw wetu ngaay naari kajoor ya ni maalum ndol-ndol bambay ñëpp ñëw di jébbalu baari keeg sànjaan kenn desul ñoo sébbulu gannaaw ba Cheikh Bamba sañcee njaareem mottali gànnaar loolu doy naa yéem Cheikh Balla jël mboolem la nekkoon jaaxal ñëw sañc ci njaareem ci ndigal di baaxal ci dëkk yooyu la nekkoon di defar ak di defare boole ko nag toog ci ndar googu ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim dëloon ba ni sëriñ tubaa seexul xaddiim jógee gànnaar ñëw ca yéen jolof ci beneen résidence surveillée ca yéen jolof boobu sëriñ Balla Coro daana fa dem di seet si ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ginnaaw ca yéen jolof njaaréem njaaréem googu nag bi fi sëriñ tubaa seexul xaddiim nekkee sëriñ Balla Coro bàyyi woon na mbooleem dëkk yooyu mu sancoon wala tool yooyu mu amoon ngir ñëw nag dëkk seek baax ki sëriñ tubaa seexul lii di njaareem bi sëriñ tuuba seexul xaddim nekkee njaareem ba ci boori 1919 feebar bu metti amoon na ci dëkk boobu di njaareem di feebaru pes boole koog nag nit ñi sonal ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim lii di autorité coloniale yi nekkoon njaareem wala ci réew mi di sénégal dugg beeg génn bi amoon njaareem dalatul woon seen xel boole koog feebar bu metti boobu amoon doon nañ sàkku nag ci sëriñ tuuba seexul xaddim ngir mu wutal leen kenn koo xam ne nii dana dox diggante ñoom nasaraan bi ak ku baax ki sëriñ tuuba seexul lijjanti rawatina feebar boobu am kooka man koo dox sëriñ tubaa seexul xaddim dajale woon na mag ñi wala waxoon na mag ñi ñu waxtaan ci seen biir xool kan moo leen doy ngir ñu jébbal ko dëkk bi ginnaaw bu mag ñi waxtaanee ku ñuy wax sëriñ moor sa loo moo dem ci ko baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim di ko wax ne balla coro de xool nañ ne man na ko ndax sa rakk la te jàng na nag lii di nasaraan jor nañ ne daal buñ ko joxee dëkk bi lenn lu ñu naqari duñ ko ci am ndax yar nga ko nga ko loo war a def ci moom def mag ñi moo ñu rawe nasaraan bi sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim woolu woon na mag ñi ba ñëw mu leen di xamal ne seen bëgg-bëgg boobu ngeen bëgg de suñ boroom xamal na ma ne Balla Coro mën naa yor dëkk bi daa di wax mag ñi bind leen Balla Coro ñu bind Balla Coro mu ne bind leen Jurbel ñu bind Jurbel mu ne safaan leen ko ñu safaan ko mu ne leen Balla Coro mooy Jurbel Jurbel mooy Balla Coro ndax soo demee ci mbindum arab soo bindee Jurbel bind la Coro ñoom ñaar boo ci safaan mu jox la ba ca des kon ci noonu lañ joxe dëkk bi sëriñ Balla Coro Mbàkke mu nekk nag chef de village kër gu mag sëriñ tuuba seexul xaddim woolu woon na sëriñ bàlla coro di ko wax ne bàlla coro xam nga lan laa nara la ma la waxoon ca ndar nag loolu dong nag laa nar muy newoon naa la ca ndar sama digganteeg nasaraan bi yow laay def ci diggante bi dëkk bii nag di njaareem itam jox naa la ko lépp lu ñu fiy def ci wàllu àtte nanga koy def te léegi kat fépp fut nasaraan bi ñëw ma war a wax ak ñoom nanga ko fekke kon sëriñ bàlla coro mën nañu wax ne nekkoon na porte parole xaadim rasul ginnaaw buñ ko joxee chef de village bu buqutul kër gu mag sëriñ Balla Coro ci lay jaar lépp lu seexul xaddiim di tontu itam ci sëriñ Balla Coro lay jaar loolu itam taxoon na sëriñ Balla Coro yore woon na dëkk boobu di njaareem nag yorin wu rafet a rafet ba lii di autorité coloniale yi nekkoon foofu rafet lu yoreenu sëriñ Balla Coro Mbàkke commandant de cercle du Bawal di monsieur l'évêque bindaatoon na ab rapport di ko jox gouverneur général bi ma koy wax ca lettre ba kii di sëriñ Balla Coro Mbàkke daal ginnaaw ko defee chef de village yu njaareem ci diirub juróomi yi macha sëriñ Balla Coro Mbàkke nekk na ku yeewu nekk na itam ku sawar nekk na koo xam ne nii ñun ñii ñun ñoo ko formé ndax ci suñuy école la génne liñ seetlu woon nag ci njaareem rawatina ci kër gu mag di dugg bee génn gi ak pëcc bi loolu nag mi ngi wàññeeku bu baax a baax a baax ñi fi daa ñëw itam di sonal sëriñ bi di ko laaj lii di xaalis itam loolu itam mi ngi wàññeeku Balla Coro daal macha allah la ñuy wax ci yorin gi mu yor lii di buqatul mu baraka ñu teewlu seede bi commandant de cercle du Bawal seede woon ci sëriñ Balla Coro Mbàkke ginnaaw buñ ko joxee dëkk boobu di buqatul mubaraka ci diirub juróomi weer te yoreen wu rafet wu ko sëriñ Balla Coro Mbàkke yor ñu teewlu rapport bi ci monsieur l'évêque defoon ngir di seede sëriñ Balla Coro lettre bi nag ñu ngi ko bind le 18 août 1919 numéro lettre bi nag mooy 27 19 le frère du marabout Balla Mbàkke me fit alors présenté homme intelligent, actif, ancien élève de nos écoles. Il assure depuis cinq mois à ma parfaite satisfaction la direction du village avec l'aide et sur la demande d'Ahmadou Bamba. Il a débarrassé l'agglomération de tous les gens sans scrupules et sans ressources qui y demeuraient et assayait chaque jour le marabout de demande d'argent. chef de village googu ñu ko defoon ba tubaab bi def ci moom rapport ngir di rafetlu yorin gum yore lii di chef de village bu xutul mu baraka moom sëriñ la Coro Mbàkke am na ñenn itam ñum jaaxaloo ci lan moo tax daal sëriñ bi saa su ne bu dee waxal rek sëriñ Balla Coro Mbàkke lay waxal ba taxoon loolu nag sëriñ bi jot ci ginnaaw bi ci sëriñ bi jotee nag waxoon na sëriñ Balla Coro Mbàkke di yaay samay gët yaay samay tànk ci sama digganteeg tubaab bi ndax dëkk bii kat yow laa ko jox ngir nga jiite ko nanga ci nag góor góorgóorlu bu baax a baax a baax bindaatoon na itam ñaari bayit ngir jagleel ko sëriñ Balla Coro Mbàkke ma ngi koy wax ci biir bayit ya yow Balla Coro heure bu ma la gisee sama buntu mbëgte yi day ubbeeku te sama xol bi itam day leer ak cofeel gu yaatu nag laa am jëmee ko ci yow ñu teewlu benn bayit bi sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim defoon ci sëriñ Balla Coro ginnaaw buñ ko joxee chef ñu koy naqarlu mahma raaytu habibi kaana munfatihan baabu sururi wa baabul karbi day muuru sëriñ Balla Coro Mbàkke bi sëriñ Seexul Xaddim nekkee foofu ci njaareem sàkk woon na ci autorité kole yi ngir ñu bàyyi ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim ci diirum ñaari fan ngir mu ñëw Tuubaa ak Mbàkke seet si njaboot gi ci lettre bu sëriñ Balla Coro Mbàkke bindoon lii di gouverneur bi wala commandant de cercle bi nekkoon Jurbel commandant de cercle boobu mi ngi tuddoon monsieur l'évêque monsieur l'évêque moom ginnaaw bu ko sëriñ Balla Coro Mbàkke bindee lettre bi ma ngay wax ci biir lettre bi monsieur le commandant de cercle du Bawal man Balla Mbàkke di baykat maay sàkku ngir nga may ñaari fan sama mag jooju di sëriñ Touba Seexul Xaddiim ngir mu dem Mbàkke ak tuuba seeti njaboot gi suy dem nag ci oto lay dugg loolu daal laay ñaante di ko sàkk ci yow yow commandant de cercle du Bawal lépp luy tukki bi nag responsabilité bi man mi Balla Coro Mbàkke maay ki koy jël daa di ñi ngi ko bind bëccëgu 28 28 août 1919 soo demee archive nationale numéro lettre bi 28 87 la fa ñi ngi ko numéroté ci le 29 août 1919 ñu teewlu lettre bi Serigne Balla Thioro Mbacke bindoon autorité coloniale yi muy commandant de cercle du Bawal ngir di ñaanal ko baax ki Serigne Touba Seexul Xaddim autorisation ngir mu mën a jóge njaareem ñëw Mbacke Bawal ak Touba ci diirum ñaari fan te bu Seexul Xaddim dee ñëw nag oto lay jël lettre bi na Serigne Balla Thioro mi ngi ko bind bëccëgug le 28 neveu. Diourbel le 28 août 1919 Balla Mbacké marabout cultivateur à monsieur l'administrateur commandant de cercle du Baol à Diourbel j'ai l'honneur devant la difficulté d'obtenir à bref délai de monsieur la liberté de circuler dans le pays en auto en faveur de mon frère Ahmadou Bamba de vous prier de famille à Touba. Veuillez agréer mes bien sincères remerciements. Balla Mbacke. ginnaaw bu l'évêque jotee lii di lettre Serigne Balla Coro Mbacke l'évêque nag moo nekkoon commandant de cercle du Bawal moom itam nag dafa jël lettre boobu jox ko gouverneur bi nekk Ndar di ko wax ne Balla Coro Mbacke muy chef de village yu Murit dëkkub Cheikh Ahmadou Bamba di rakk yi itam ci Ahmadou Bamba moom ma bind lettre bii ma la yónnee di sàkku nag ci magam jooju di Serigne Touba Seexul ngir mu mën a dem Mbacke Bawal sëriñ Balla Coro nag ca lettre ba moom Touba la bindoon waaye commandant de cercle du Bawal nag bindul Touba moom Mbàkke la def ca lettre ba commandant de cercle du Bawal nag mi nga xamal gouverneur général bi nekk Ndar di ko xamal nag lettre boobu sëriñ Balla Coro Mbàkke di sàkku ngir magam jooju sëriñ Touba Seexul Xadiim mën a dem Mbàkke Bawal bu doonee ci wàllu jafe-jafe politique moom gisuma ci benn jafe-jafe ndax jamono jii ci côté politique lépp a ngi jaar yoon kon Seexul Xadiim détenu politique lañ ko jàppe woon wala bët boobu la ko tubaab cercle du Bawal ñu gën maa xam ci monsieur l'évêque man maa ko bind ci bëccëgu le 14 septembre 1919 gouverneur général bi nekkoon ndar mi ngi jot ci lettre boobu bëccëgu le 17 septembre 1919 lettre boobu boîte postale bi ñu ko dugaloon mi ngi nekk 44 81 numéro lettre bi nag 30 la 37 soo demee archive nationale daa ko fa fekk ñu teewlu lettre bi monsieur l'évêque bindaatoon gouverneur général bi ngir di ko jottali lettre bu sëriñ la Coro Mbàkke bindoon ngir di sàkku autorisation gabon ngir seexul xaddim mën a jóge njaareem ñëw tuuba ngir seet si mbokk yi ñu teew lu lettre bi monsieur l'évêque nekkoon commandant de cercle du bawal jottili woon gouverneur général bi ngir di ko yëgal lettre bu sëriñ Balla Coro boobu ah monsieur le gouverneur général du Sénégal à Saint-Louis je vous transmets lettre du nommé Balla Mbacké chef du village mouride d'Ahmadou Bamba et frère de ce marabout qui me demande à nouveau l'autorisation pour ce cheikh de se rendre à permettant de me donner instruction, j'estime qu'au point de vue politique, il n'y a pas d'inconvénient à donner cette autorisation signé l'évêque le 17 septembre 1919. gouverneur général bi nag mujj na tontuwaat commandant de cercle du Bawal di monsieur l'évêque ngir di ko wax ne mën naa bàyyi Serigne Touba Seexul Xaddim mu dem ci visite boobu mu doon sàkku commandant de cercle du Bawal di l'évêque bindaatoon na lettre Serigne Balla Coro Mbàkke ngir di ko yëgal ne gisuma benn jafe-jafe daal ngir Serigne Touba Seexul Xaddim mën a dem foofu mu bëgg a dem saa bu bëggee dem may nañ ko nag lii di ay fan ngir mu dem buy dem lay dugg ci oto boobu itam nag lay dugg waaye nag ñi muy àndal fuñ jaar xool ko ndax ñaari nit wala ñet nit rek lañ ko may ngir mu ànd ak moom ndax xam nga ne yow Balla Coro Mbàkke feebar bu metti nag moo am ci réew mi wala ci région bii di région de Diourbel muy feebaru pest boobu ngir sàmm nag wàllu wér-gu-yaram gi nag moom moo tax ñu def loolu bu dul loolu daal amul benn jafe-jafe ngir sa mag jooju mën a dem seeti mbokkam yi lettre bi nag ñu ngi ko bind bëccëgu le 25 septembre 1919 boîte postale biñ ko dugaloon moo nekk 48 48 numéro numéro bi ba tey nag ñi ngi ko numéroté ci 30 37 ñu teewlu lettre bi monsieur l'évêque nekkoon commandant de cercle du Bawal bindaatoon sëriñ Balla Coro Mbàkke ngir di ko wax ne mën na bàyyi sëriñ Tuuba Seexul Xaddiim saa bu bëggee dem seeti mbokk yi mu dem je ne vois pas aucun inconvénient de laisser Ahmadou Bamba se rendre en automobile à Mbacké et Touba pour quelques jours à condition qu'il ne soit pas accompagné que deux ou trois personnes stoppe toutefois en raison d'une situation sanitaire actuelle, je désire, avant d'accorder cette autorisation, vous entretenir de la question lors de votre venue au chef-lieu. kon lettre boobu la l'évêque bindaatoon kii di Serigne Balla coro l'évêque nag bi muy tëj ay kàddoom mi ngi koy wax ne bi ngay ñëw ngir ñu lay def chef de village feebar moom moo am feebar boobu am nag moom moo tax ma doxalee noonu autorisation boobu Serigne Balla Thioro bindaloon Serigne Touba Seexul Xaddim Seexul Xaddim mujj na jël autorisation ba waaye mujjul ñëw mbàkke ak tuuba xuru mbàkke nag la yem jaale si waajuru sëriñ mbay jaxate ndax waajuru sëriñ mbay jaxate kat ku taxaw woon sëriñ tuuba seexul xaddim la ci bi muy jàng li ñu tuddee ndayu daaraam la woon loolu itam taxoon na bi waajuru sëriñ mbay jaxate génnee adduna sëriñ tuuba seexul xaddim yëgaloon sëriñ hababakar jaxate di ko wax ne dinaa ñëw xuru mbàkke jaale si la ci demande autorisation boobu nag ci la mujjoon jaare mujj ñëw xuru mbàkke sëriñ tuuba seexul la génnee néeg boobu di néeg soxna jaara di néeg bi ñuy ziyaare ci xuru mbàkke ca la waxee itam teen ba ca la waxee ne fii moo nekkoon néeg soxna jaara ca yoon woow itam oto bañ duggoon cheikh isaa jenn moo ko doon dawal mook sëriñ bàlla coro ñoo àndoon ak ku baax gi tubaa seexul xadiim ci atu 1919 la ba tey ci atu 1921 ku baax gi sëriñ tubaa seexul xadiim gouverneur général bi nekkoon dakar di marlin invité woon na ko ndakaaru ginnaaw buñ indee demande invitation bi ci ku baax gi seexul xaddim ci mois de mars 1921 coow lu bari la indi woon ci njaareem wala ci mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim ñu bari jortu ne tubaab bi dafa bëgg a tegaat loxo ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim nit ñi nag tàmbalee ñurum tu ca booba nag sëriñ Balla Coro moo nekkoon chef de village yu njaareem wala mu mubaraka ginnaaw bu ci commandant de cercle du bawal waxtaanee ak sëriñ Balla Coro di ko xamal ne monsieur Marlin di gouverneur général bi moo soxla ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim ab invitation ci ndakaaru sëriñ la Coro mi ngi doon xamal commandant de cercle bu jurbeel di ko wax ne mag ñi dañu baree bari dañoo jort ne tubaab bi dafa bëgg a tegaat loxo ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim commandant de cercle du Bawal di ko wax ne déedéet gouverneur bi kay dafa bëgg a juboo ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ndax kat seetlu na ne coow lu baree bari am na fi ci at yi passé coow yooyu nag lañ bëgg mu fay sëriñ bi xam ne ñun daal ay xaritam lañ moom itam mu xam ne moom suñu xarit la sëriñ Balla Coro Koro mi ngi dolli ci monsieur Lévesque monsieur nag moo nekkoon commandant de cercle du Bawal ci jamonoy 1919 ci njaareem mi ngi ko doon xamal ne na wax ak gouverneur général bi di Marlin ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim léegi nag nekkatul gone teyit yaram yu maytu ko muy jaabante yenn jaabante yu bari yi te coow lu bari li am ci njaareem itam mën naa ñàkk monsieur Lévesque di commandant de cercle du Bawal di wax Sëriñ Balla Coro rek ba nëgëni gouverneur général bi daal jubluwul dara ci invitation bi lu jaal coow li fi amoon mën a fay seexul xaddim nag mujj na dem ci invitation boobu muy ci ndakaaru ba muy dem kii di maam cheikh antam mbàkke boroom dërëm ak ngërëm la àndaloon ak cheikh mudul mustapha mbàkke ab oto itam moo ko jëlee njaareem ba ci dëkk bii di laay ñaar mu xaar fa saxaar gi doog a dem ndakaaru bi mu demee nag la dal ci kër googu di kër sëriñ bi ñu tudde ko défoncé saa bu xëyee nag dem wuy ji gouverneur général bi di Marley ci palais présidentiel bi muy pale bii Macky Sall nekk sëriñ tubaa seexul am na fa ñetti fan ca googu di ndakaaru ginnaaw bu sëriñ Touba seexul xaddim eggee ndakaaru ba war a jàkkaarloog gouverneur général bi di Marlin sëriñ Balla Coro Mbàkke nekku fa woon waaye sëriñ Touba seexul xaddim dafa sàkk woon sëriñ Balla Coro Mbàkke fekk si ko ndakaaru ngir kàddu yi nga xam ne nii tubaab bi war na koo yëkkati sëriñ Balla Coro moo war a tontul sëriñ bi gouverneur général bi moo bindaat baneen invitation ngir ñu jox ko sëriñ Balla Coro Mbàkke invitation bi ñu ngi ko signé ci turu gouverneur général bi le 27 avril 1921 boîte postale bi biñ ko dugaloon moo nekk N 563 ngir ñu jox ko commandant de cercle du Bawal ngir mu jox ko sëriñ Balla Coro Mbàkke di ko xamal ne sa mag gi sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim nee na nga fekk si ko Ndakaaru Njaay ci daar daar bi soo demee archive nationale itam daa ko fa fekk document yi nag ñu leen wax wala lettre yi ñu leen jàngal ci gëstub sëriñ Balla Coro Mbàkke bi bépp lettre buñ leen fi jàngal copie bi jógee archive nationale mi ngeeg man mi Abdourahman ca yoon woow itam la sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim sàkk woon waa Mbàkke mu jënd kër googu mu nekkoon muy kër ñu tuddee kër sëriñ bi di di foncier Cheikh Modou Moustapha itam mujj na jënd kër ga ci ndigalul ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim loolu moo waral kër sëriñ bi nekk Ndakaaru sëriñ Touba Seexul Xaddiim di ñibbi si itam ci yoon wu jóge Ndakaaru war a delsiwaat ci dëkk bii di Njaareem maam Cheikh Anta Mbàkke itam jaarale na ko ci dëkk boobu di gaawaan ngir sëriñ Touba Seexul Xaddiim seeti dëkkum maam Cheikh Anta boobu am na fa itam lu tolloog ñaari fan wala ñetti fan ci dëkk boobu di Mbàkke ginnaaw gaawaan itam delsiwaat na njaareem wéyal fa ak nekkinam kon sëriñ Balla Coro ku jege woon ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim la fa la nekkitim ba ni sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim génnee àdduna ci atum ñett ku jaxasoo woon ak tubaab bi la ba tax na tubaab bi tam defoon nañ ko ay xarit ngir di ko seet si saa su ne moom sëriñ Balla Coro Mbàkke sëriñ Balla Coro itam mujj gi nangul woon a waxi tubaab ndax nee na daa am lu ko ci sëriñ bi doon liggéey loo loola nag ginnaaw bu mu matee bu tubaab yi masaa ñëw ngir di waxtaan seeg moom ñaare daana wax ñi ko jege di leen wax ne nee leen Balla Coro de daa amee ak waxu wala ngaam wi day metti su tubaab yi masaa dellu nag mu leen di xamal ne wax gi ma daa wax tubaab sëriñ bi rek moo ko daa sàkku ci man sëttuma ko wala sëriñ bi waxloo wuma ko tubaab yi nag duñ ma ko waxloo jërëjëf bàyyi sëriñ mbay mbàkke jaaxal sëriñ habibullahi mbàkke ñu gën koo xam ci sëriñ balla coro mbàkke sëriñ tubaa seexul xaddim joxoon na ko ndigal nag mu dem sanc ay dëkk comme ni ko mag ñépp defee ci atu 1906 sanc na dëkk bu ñuy wax jaaxal jaaxal googu nekk na fa juróom-ñaari at liggéey di it ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim di tarbiya mbooloo ma ko sëriñ tubaa seexul xaddim boolee loon ci ñàcc ci ndigalul ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim ci atum 1928 ginnaaw bu fi ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim bàyyi ko sanc na dëkk bu ñuy wax mbàkke saalum ci atum 1941 nag la sanc dëkk bu ñuy wax mbar mbàkke mbar mbàkke mi ngi ci wetu dëkk bii di mbar ñoo taqaloo sax suuf soosu seex isaa jenn moo ko moomoon moo ko jébbal kii di sëriñ la coro mbàkke ngir ak kóllëre ak ëttub sëriñ tuuba seexul xaddiim biñ bokkoon ci dëkk boobu sax la sëriñ balla kàddu yu ko ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim waxoon ndax sëriñ tuuba seexul xaddim mas na wax sëriñ bàlla coro ci njaareem ne ko bàlla maag yow rek ci mbooleem njabootug mamor anta sali mbàkke gi ñun ñaar dong nag ñoo ciy bàyyikoo ci dëkk bii di njaareem ñu yóbbu ñu tuuba loola itam sëriñ bàlla coro déggoon na ko ginnaaw bu mu sancee nag dëkk bii nag di mbar mbàkke bi mu demee ba xàpp bi ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim waxoon la dajale mbooloo mi na leen maa ngi dem njaareem ndax àpp ba jot na bi dikkee njaareem ay fan yu néew la fi def suñ boroom indib dogalam muy jël ko waxi sëriñ tubaa seexul xaddiim daal kum ko wax yàgg-yàgg daa ko gis sëñ Balla Coro seede la ci ginnaaw dëkk yooyu mu sanc wala laataa muy sanc dëkk yooyu sëriñ tubaa seexul xaddiim keroog bi ko sëriñ Balla Coro seet seet ci réew moomu di gànnaar sëriñ tubaa seexul xaddiim joxoon na ko ndigal moo magam sëriñ Cheikh Coro Mbàkke ñu nekk nag ci dëkk boobu di ndar géej ba lool sax moom moo waral njabootu sëriñ Cheikh Coro Mbàkke ñi ci bari ñi ngi ci dëkk boobu di ndar géej foofu sax lañ féete ndax ndigal li sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim joxoon sëriñ Balla Coro ak magam sëriñ seex Coro ngir ñu féete ci dëkk boobu di ndar géej kon sëriñ Balla Coro jaar na ci ndar ginnaaw ndar itam def na dëkk yu bare bare bare bare bari ngir di sanc ay daara ci laata muy sanc dëkk yi ko sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim dël ci nag la nekk di liggéey di yar seexul xaddim toftal ak mbooloo mi koy yaakaar ngir jëmmi xaadim rasuul ji lu ñor mu it magam ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ginnaaw seexul xaddim itam mu fab léppam jébbal cheikh mamadul moustapha mbàkke ngir xam na ne doomam la te moom moo yore lii di yoonu murid wi ginnaaw cheikh mamadou moustapha itam fab na léppam jébbal ñaareelu xalifa xaadim rasuul muy mu mamadul faadal mbàkke ci xilaaf ak cheikh mamadul faadal mbàkke sax la génne àdduna ci atum 1947 ci njaareem sëriñ habibullahi mbàkke ñu gën koo xam ci sëriñ balla coro mi ngi ngi génn àdduna bisub samedi fukki fan ak ñett ci rakkaat ji gàmmu ci atum 1366 ci gàddaay gi bisub gaawu fukki fan ak ñett ci rakkaat ji gàmmu ci atum 1366 ci gàddaay gi dëppoog muy samedi 5 avril 1947 samedi 5 avril 1947 ci dëkk boobu di njaareem ginnaaw bu ko sëriñ Tuubaa seexul xaddim waxe woon ay wax doon ko wax ne Balla Coro maag yow rek ñooy génnee àdduna ci dëkk bii di njaareem ñu jële ñu njaareem yóbbu ñu Tuubaa tax bi mu demee ba àpp bi jub si mu jóge ci dëkk boobu mu mujjee sanc di mbar mbàkke dajale woon njaboot gi di leen xamal ne damay delluwaat njaareem wala fan yi dama am ay soxla njaareem ndax àpp ba mas ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddim waxoon dikk na bi mu dikkee njaareem nag ci fan yim fi am ci la génne àdduna ci bis yi ñu leen wax ñu jële ko njaareem indi ko nag ci dëkk bu sell bii di tuubaa ci ndigalul cheikh mu faadal mbàkke mi toogoon toogaayu xaadim rasul di cheikh mahamadul faadal mbàkke jullee ñu jébbal ko boroomam ci armeer yu mag yi moom sëriñ habibullahi mbàkke ñu gën koo xam ci sëriñ balla coro ay xalifaam nag nii la tëdde ci atu 1947 1957 ba atum 1981 sëriñ abdourahmaan mbàkke moo njëkk a nekkub xalifaam moo ko wuutu ñaareelu xalifa sëriñ habibullahi mbàkke ñu gën koo xam ci sëriñ balla coro mooy ku ñuy wax sëriñ mbay mbàkke jaaxal moo ko wuutu ci atum 1981 ba atum 1997 ñetteelu xalifa sëriñ habibullahi mbàkke ñu gën koo xam ci sëriñ balla coro mooy ku ñuy wax sëriñ mammoor mbàkke balla coro moo fi nekk sax ci atum 1997 ba nëgëni ñu koy ñaanal suñ borom guddal aw fanam te yàgg yàggal ko ci toogaayu sëriñ Balla Coro Mbàkke mu ànd ak ay rakkam ak mbooleem njabootuk sëriñ Balla Coro gépp yàlla na leen fi suñ boroom bàyyi sëriñ Habibullahi Mbàkke ñu gën koo xam ci sëriñ Balla Coro am na nag bis buñ koy fàttaliku muy lu ñu tuddee ak màggal sëriñ Abdourahman Mbàkke mi njëkk wuutu kii di sëriñ Habibullahi Mbàkke ñu gën koo xam ci sëriñ Balla Coro moo jàppoon fukki fan ak ñett ci rakkaat ji gàmmu di ko màggale ci dëkk bu ñuy wax njaay dànq ngir di fàttaliku sëriñ Balla Coro màggal na ko ay ati at ci dëkk boobu di njaay dànq ginnaaw bi nag cheikh mamadul faadal mbàkke tere woon na fi bis yi nga xam ni dañ ciy fàttaliku mag ñi muy bis bi ñuy génnee lii di àdduna wala sax tere woon na fi lii di màggal yi ca jamono jooju nag njabootu sëriñ abibullahi mbàkke di sëriñ balla coro ñi ngi fàttaliku sëriñ bàlla coro cheikh mohamadul faadal mbàkke woolu woon na fi kii di sëriñ abdourahman mbàkke mi nekkoon xalifa sëriñ bàlla coro di ko wax ne abdourahman da ngay dëjalaat sa baay ba sëriñ abdourahman mbàkke ko wax ne ko déedéet soro di leen laaj àddiyee rek cheikh mamadoul faadal màkke di ko tontu di ko wax ne abdourahmaan yaa ñemee dëgg waaye nag yaa ñépp a yem da ngay màggal màggal googu nag mujj nañ ko bax ginnaaw ba sëriñ mbay mbàkke jaaxal toogee nag lii di xalifa jàppaatoon nañ beneen bis nag di ko màggal ci weeru gàmm ngir jagleel ko sëriñ balla coro mbàkke ñu koy màggale ci dëkkub sëriñ mbay mbàkke boobu ñu koy wax jaaxal màggal googu sax mi ngi wéyandi ba nëgëni ginnaaw nag bu ñetteelu xalifaam bii toogee xalifa di sëriñ mammoor fàttaliku sëriñ Balla Coro Mbàkke ñu koy màggale ci dëkk bi mujjee sanc ci dëkk bi mu bàyyi ko dem wéyali ndégalul ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim di Mbar Mbàkke màggal gi nag amul benn bis fixe bu ñuy amal ci at mi saa bu ko njaboot gi jekkoo màggal ko ci dëkk boobu di Mbar Mbàkke ci ndigalul xalifab sëriñ Balla Coro màggal gi nag sëriñ Abdourahman Mbàkke mi njëkkoon a nekkub xalifaam ak sëriñ Balla Coro lañ ko jagleel ngir di leen ci sant ak di leen ci ñaanal ñuy ñaan ci doomu soxna Coro Jóob ak Mamor Anta Sali Mbàkke woon abibullahi mbàkke ka seexul xaddim woolu woon ba jox ko quartier boobu mu sancoon ci njaaréem di buqatul mubaaraka ngir mu jiite ko yàlla nañu ko yàlla fayal te yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem te guddal fanu nag njabootam gim fi bàyyi gépp moo xam doom sët jarbaat ak taalibeeg soppeeb sëriñ Balla Coro te jafe-jafe